kon ngeen am jàmm ak mucc ak noflaay te te ngeen moytoo def luy waral rëccu ak jooy ndax boroomam xel day téye boppam ba du dugg ci liy waral gàkk-gàkk ak i ndax ndax di dij boppam ci njariñ yu koy jëral mbëtte mu sax bu faaw moo tax waxi sëriñ Touba ji ñëpp ci war a bàyyi xel ndax ku ci tënku doo réer mukk te doo sànk mukk Serigne Touba nag suñ borom da ko may mu tabax aw xeetu nit ni suñ borom bëgg ab jullit mel ne mu andi ñu projet mach tudde ko mashruu al fawsayni mu indi àdduna ak àllaaxira moo tax Serigne Touba dafa dajeek contexte boo xam ne benn nitu yàlla dajewul ak moom ndax sunu borom dafa rocc ci loxo jullit yi doole yi àdduna ak mbootam teg ko ci loxo yéefar yi ngir xool la ñu def ndax dañuy rafetal te delluwaat ci seen borom ak fi mu leen dëddal ñu war caa jaar wala dañuy jaar fa yéefar yi ànd ak ñoom ba fa sànku àdduna ak àllaaxira مرة سرينت وابيموني لمدة ماي ووني نجى الإرادة والهمة تموي فيها بيال لجنة للب نيكو القرآن وحى كل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعصيرتكم وأموال اقترفتموها وتجار تحصون كسادها ومشاكل ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره ci noonu la Sëriñ Tuubaa yara ay taalibeem wax leen ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi diine ci diine ji ci la defare wenn xeetu nit wu bees woo xam ne kenn mësula gis ñu mel ne ñoom ci bëgg yàlla ak pëstéef ak jikko ju rafet ak yar ak teggin ba mel ne saxaaba yi ñoo wàccaat ci pëstéef ak yitte ju kawe Sëriñ nag li tax mu am ndam ci liggéey bu rëy boobu mooy yetti mbir yi bu jëkk bi mooy ar ruuxaaniya ndax dafa fekke aduna jëm juk ci al madde tamoy gëm matériel ba fàtte yàlla mu jëlat xoli namat len leen len ci yàlla ila ilallaahi bil quraani wa sunnati allati hadani sharaftu al kull wal qalbu xaashi'un al waqi'iyatu tamoy wàcc ba tolo nit ñi wo len ci le dëppoog li dundu li ñi dundu jagle len bax ak dina bañu mën ko dundu ta du len soral khatibun nas ala qadri uqulihim ولن يشهد الدين احد الا غلبه لن يشهد الدين احد الا غلبه موتاخ مودا وون نيت يرمادي يالا جي لين خوله بتم بغن ورحمتي وشعد كل شيء يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورا يا هادي الرداء فخ موسى لين تي دوكترون الحداثه تاموي مودرنيتي فخ با ني موتشي تي التغريب تاموي اوكسيدانتاليزاسيون duñu am complexe ci seen gëm-gëm ak seen ciol ak seen doxine dañu nur li ñu doon te sëriñ bi wax na ne law tanassartu la daxatu nar wal iyas billahi taala lolo wara ñëpp maase deggmal sëriñ Tuubaa xamne moy seen jeriñ aduna al akhirah allah yansurni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri zanifin bi naa daradi ba ca topp mooy albasata albasatatu te mooy ñëpp koy mën a dund te du la sonal ñépp ci mara jariñu amul kenn ku gën wa yastawi mubtadiin wa muntahi fii nafyi wa xayruhu la yantahi teg leen ci ashratu mustaqim ba képp ku bëgg ku ko bëgg aju ci moom mu garanté la àjjana àdduna ak laaxira te wax na ne lépp lu ma bind ni moo ko waxee ni la ko suñ borom dogale wa huwa lisi jaala ma katabtu kama katabtuhu wa ma kasabtu wax na ne sama lépp ak jaamu yàlla la wax na ni itam képp koo xam ne جوانغان من سنين بورم دانا الالك لمن له كلية عبادة حمدي ومن خالفني أبادة نين ايتم كيب كو خمنا يا كارنما سنين بورم تيال نسبقا انتي أدنك الاخرة تابد نفوس من تعلق بيا دنيا وأخرى زاك فضل ربيا نين سنين بورم جيجن كيب كو عجج من يا كارنما واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سنين nee na képp ku aju si man ku ne yàlla suñu borom musal na li ci seytaane moo tax lépp lu fi yàqu rek yàqu bukkaan la waa yàqu seytaane suñ tubaa génn na ju najjayta man bi ma maa min ash-shayaatini fa sukkur yasmaa nee na itam képp ku ko yaakaar dana tabbi àjjana kullu muridin bi yaluusu yasaadu wa innahu min al aza mubaadu moo tax ca gànnaa dafa xëy bis wax sëriñ Aliou Sey ne ko Aliou wool fere yi ñu daj ba ñëpp daje mu ne li ma leen di doy de mooy suñu borom damaa xamal ne dana ko alliwi limal ma ci yéen yam senegal gum lim rek sëriñ bi na ko googu ba yàgg sëriñ bi na ko li ma ci julli mooy suñu borom damaa xamal ne balaa si siy déwén danañu fekk ñuy delluwaat Sénégal ci ak ci yéen loolu nag li ma jublu ci wax leen ko mooy dama bëgg ngeen xam ne lépp lu ma leen dikk ni ngeen di gise lii ni ngeen di gise loolu daane fii moo ko waxee ba booba nag ci kàttanu yàlla kenn du faatu boobu fekk na nag am na kenn ci taalibe yi koo xam ne dafa wér di ba ñëpp di ko xaaroo yaakaar dee faatu waaye suñu borom dafa def mu wér ba Serigne Touba dellusiwaat senegal ba ñëw ci Jolof mu door a faatu kon nag Serigne Abdou Lahad waxoon na ne Serigne Touba ñeenti mbir lañu gisoon mu itteel ko benn bi mooy diggam ak yàlla diggam ak alxuraan diggam ak rasuulullaay ba ca di Touba ñaanoon na suñu borom saxal fi kaaraange. mu sol ko ci lépp luy musiba te lépp lu mu fi ñaan yàlla suñu defal na ko ndax moo wax ne la hëwa habta maa kafal xutuba fa fa suqlahu fawqa raja fii Touba kon tey bu nu dajee fii di ubbi yoon wii di Ila Touba te président Macky sal amal ko kon day dëggal ne la Serigne Touba waxoon ne rabbi stajib waltu kamin maana woytu la daa Touba lati bikatum naa fii ko bu naa suñ borom dëggal na ko kon Serigne Touba nee na kon Serigne Serigne bi nee na président mi ngi lay sant bu baax ci si ci sa yéene jure ji ci dëkkam bi def nga ci li nga man ak li nga mënul ba yàlla sottal ko tey ndax lii kat keroog ba ñu tax xeer wa ñi ëpp ci nii yaakaaruñu wax ne mën naa sott ci diiru juróom-ñaari kon nag bu ko suñ borom dogal ñi tey woon ngaa sant yàlla bu baax kon nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku ma defal loo man ma defal loo mënul ku ma defal loo mënul ma defal loo jomb kon nag sëriñ bi nee na faw mënuy sulaa ñàkk sant mënuy sulaa ñàkk gërëm kon nee na mi ngi lay sant bu baax ci turam ak ci tur mboolem jëbarub sëriñ Tuubaa gi ak ci tur mboolem yoon murid mi ngi yeesala cantam gii nag ci liggéey bu rëy bii nga xam ne defal nga ko waa réew mépp nga ko defal waaye defaral nga ko Touba defaral ko waa Touba Touba nag bu ñu ko wax Serigne Touba moo tax kon euh, Serigne Touba kenn mësu koo liggéey di ko rëccu ndax moo wax ne كبكم اللي بناء يشكرا وعزم قبلي وخدمة العيال ترى أقبلي كل الذين اشتغلوا بخدمتي وتكفيهم غدا أذى كصدمتي waxoon na ma defal képp ku ma liggéeyal suñu boon defal ko loo xam ne képp ku ma dana ko ci ñeeb faw loolu kon firndeel na ne liggéeyam bu réy bi nga ko liggéey ci dëkk dëkk bu tëdd bi te muy jëf joo xam amul jënn jëf ci wàllu sànce yu nu kon sëriñ bi na ku jëfal sëriñ Touba sëriñ Touba am na payu boppam te sëriñ Abdul Ahad Mbacke waxoon ne ku liggéeyal sëriñ Touba murid yi amal nañ ba faaw ndax njabootu sëriñ Touba gi du ñu sakk jëf ndax hal jasaa'ul ihsaani illa ihsaan sëriñ Touba dafa waxoon ca xasid ak haasa jasaa'ul ihsaani lil quddaami waqdi xawaaija lasina daamu fii xidmati wa hablahum maaraamu yow sunu borom na nga faj aajo képp ku jug ngir liggéeyal ma te defal leen seen bëgg kon nag sëriñ bi nee na nga sant bu baax tax ne lii nga jëfal sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa mi ko mi tax nga jëfoo gis na ko yoon wii nag nga ñëw di ubbi si tey ji mooy wu njëkk wu am dayu bii kon mi ngi la ci ndokkeel ci liggéey bii ndax njariñu réew mépp la ndax day lëkkale fi sori woon di jegale di jàppandal dem gi ak dikk gi kon waa du waa dëkk bi rek koy jariñoo waaye réew mépp la jariñ kon ubbi nga tey bunt bu rëy te gaaw ci suqali réew mi te Touba gi mu jëm Serigne Saliou Mbacke waxoon na ne yaakaaru ju tas miinu ñëwul kër Serigne Touba Serigne Touba nag dëkkam bi wàccuwaay bi mu am ci dénn ak démographie ak ci koom-koom ba tax ñu war fee def sànc yu toll nii li ci jëkk moo dina Touba. dafa am wàccuwaay wu màgg ci Sénégal ak ci àdduna bi lu mat ay millions yu bari seen yaakaar nekk fi ndax seenu sëriñ moo fi dëkk at mu nekk ay millions di fa daje bàyyi ko fu ne ci àdduna si Touba nag nekk ci diggu Sénégal di xoolu Sénégal nekk motoru Sénégal kon ku fi indi yoon wi daanaka lëkkale nga Sénégal gépp muy penk bi ak sow bi ak gànnaar gi ak Saloum bokk na ci li yombal jokkoo ci réew mi muy dëkk boo xam ne dana indi lu bari ci koom-koomu réew mi ndax ay gor yu nangoo liggéey te ñu yor leen ci jàmm ak jom ak ñeme coono di demal seen bopp di dunde seenu ñaq nii leen ko Sëriñ Tuubaa diggale wa talabul xalaali fardun yentami li kulli muslimin bi xayri wax mi am na benn boroom xam xam-xam bu mag bu ñu wax Hubayriyaan wax na ne 1958 li nga xam ne moo ñor ci biir Sénégal ci réew mi ci wàllu mbay 60 pour cent yi murid yi ñoo ko def nee na loolu nag day waral njàmbaar gi nga xam ne murid yi am nañ ko ba fii ne mooy njàmbaar gee nga xam ne am nañ ko ci ne bitim ak ñee seen ñee daan seen doole ci mboolem Sénégal yi lii lépp nag li ko ko may mooy nongu natt bu ko suñu borom dogaloon ci moom. te nee woon yàlla suñu boom de ba ma koy liggéey liggéeyal jombalu ko waaye ba may fay fooxalu ma kon nag payug yàlla amul fenn fu mu yem wala lu doomu aadama mën a xalaat ci xeram lu dul ne coobare suñu borom la kon bi Serigne Touba nekkee ci yéen Jolof ci loxoy tubaab bi commandant de cercle bu Louga dafa bind benn arrêté ci moom le 7 mars 1909 wax ne Serigne bi mayatuñu la li la wër ci nekk dëkkuwaay bu mu weesu ñaar fukk nit ñi lay seetsi ci bis yi bu ñu weesu juróom fukk te dañu te dañuy ñaan permis doon a ñëw bala ngaa wubbeeti benn daara ngir jàngale danga am autorisation bu jigee ci commanda bu Louga tey ci tey jii fii ci Touba lu ma ñaari million ñoo fi dëkk fii nu toll li fi nekk ci daara alxuraan mën na mille trois cent cinquante te bokk ak école yi diine yi li fi nekk ci ay jumaa yu julli ay juma mën na téeméer ak ñaar ko li fi nekk ci jàkk ay téeméeri téeméer la mu jàngal nu wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbuhu moo tax ca njaariyam bis commandant de cercle dafa ñëw wax sëriñ bi ne ko ñun de dañoo amu tey dangaa def tooñ bu rëy rëy ndax mboolem lu ñu mas lu ñu la masate ci nattu ay njort la woon waaye tey dangaa def loo xam ne yoon da ko ndax mooy ñii nga jële ay jaam mursani jën leen indi leen senegal sëriñ bi ne leen fa ma leen jënd de seenu tere indi euh, àggagu fa bi ma leen indee fii itam goreel leen a tax tubaab bi ne tekk ba ci àgg mu ne ko yow de nii nga def bu ko ñëpp defoon ak njaab jeex ci àdduna mu ne ko man lu may doyee ay jaam ndax ko gor yi nangoo doon sa jaam looy doyee jaam mu ne ko ñun de dañoo amul jaaxle ndax juróomi dërëm yi ñuy laaj ci impôt di ci sonal nit ñi leen ci teg ay daan yooyu nanguñ koo jox yow nga laaj la ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ñu lay jëli ak di la wër te mënuñu làgg si la ko jox Serigne Touba ne leen li ko wóotale de mooy yéen li ngeen di laaj li ngeen leen di laaj laaju leen leen ko ngir yàlla joxu leen joxuñ leen ko ngir yàlla yéen itam deful leen ko ci yàlla man nag li ma leen di laaj laajuwa leen ko dama leen ko laaj ngir yàlla eh, di leen ko defal ci yàlla looloo ko wóotale kon nag Serigne Touba eh, noonu mu noonu ko suñ borom defaloon kon loolu moo tax lépp lu waaye sàkku ci moom ni nga ko bëggee la ko sunu borom di dogale kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci barke sëriñ Tuubaa lii mu doon buntu xéewal bu dul tëjooti ba faaw ci yow président yow mi nga xam ne yaa ko indi fii ci dëkk bi di la xamal ni itam sak ci moom nee na am na tàmbali waaye amut fu mu yem ndax nee na yàlla suñ borom dalaa boole moom jëmb jëkk muy toog ci jaatu jitaayu sëriñ Tuubaa yi na nga def ko kilifa def ko sëriñ def ko wajur jox ko ab cër bo xam dara mënu ci dal ko bi yàlla dogalee itam mu nekk fi Serigne Touba nee na nga yeesal loola feddli ko jàppaat ko yeesal sa taali bi ci moom lépp loo xam ne def digal na la ko itam amugu ci lenn loo xam ne defoo ko kon nag nee na sa digg moom cant gi am na fu mu tàmbalee waaye fu amu fu mu yem kon nag nee na mi ngi lay ñaanal ci barkeb Serigne Touba yàlla suñu moom jàppale la dimbale la. ba mboolem somb yu rëy yi nga xam ne am nga ci réew yi yàlla katt na la ba somb yooyu yëpp nga àggale ko ba tëj ci bëtam nee moom ci boppam nag mi ngi lay sant ndax noonu la moo ko waxee ci làmmiñam ndax nee na ma li mu bëgg kat mooy ku ko ñaanal mu mottali ay yéenam kon nag faw ma ñaana ko yàlla dimbale ko mottali ay yéenam nee na li mu koy jeexale rek moom amul loolu Serigne Touba rek la yaakaar moom la am mooy léppam. nee na jël na sa jëmm ji nag dénk ko Serigne Touba kon bàyyi na la ak Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.